dal na a jàmm mbokk internet du net bi TV Sénégal Bouba Ndour daal dina wax rek si arrestation de Ousmane Sonko mu ne nag loolu mën naa dugal réew mu si guta ndaxte rek nee na il faut que ñu nangu ne maire bu Ziguinchor bi réalité politique la Ousmane Sonko réalité politique la boo xamante ne nii problème am dañ ko war a régler mu ne nag problème am bu ñu ko réglé wul nañ jàpp ne réewum Sénégal élection du fi am mu ne bu ñu ko jàppee réewum Sénégal mën na fay daal di jaaree tàkk mu ne nag loolu kenn mënu ko weddi ndax lu koy firndeel mooy bañ joxee verdict bi ci procès ak Adji dëkk yëpp ndaw ñu jugandoo wàcc ci télé bi jàmbaloo ak takk deri jàmbaloo yu métti métti ba seize personnes daal di si ñàkk seen bakkan ñu bëri seen alal ñu daal di koy yàq moo xam alal ju ñëpp bokk ak alal boo xamante ne ni kenn nit moo ko moom mu jàpp na rek euh, mbirum Ousmane Sonko lu ñu war a régler la. moom Bouba Ndour nag euh, mi ngi bàyyiloo xel kilifa réewum Sénégal rawatina njiitam réew mag Macky Sall ne nañu moytu dugal réewum Sénégal si guddi goo xam te ni bu fi yeggee neen xam ne kenn mënu koo régler. bis bi ñu jógee si jàpp Ousmane Sonko nañ xam ne même armée bi bu jigoon du mën a contrôler population réewum Sénégal mu jàpp ne daal réewum Sénégal bis bi ñu jógee si jàpp Ousmane Sonko dina tàkk te kon nag euh, kilifa yi war nañoo a gaaw xool ñu régler problème Ousmane Sonko ndax buñ ko réglewul élection moom Sénégal ba tax na ñenn ci ay nit ñi wax ne nañ ko jàpp nee na ñooñu kilifa yi warul leen a déglu ndaxte ñooñu loolu ñuy wax defut loolu dul yokk ci xar mi karaw ba tax na daal njiitam réew mi Macky sàll war naa xoolaat bu baax baax fu mu teg tànkam te jéem a xool naka la régler problème Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko mii réalité politique la boo xamante ne nii foog ñu régler problème am bu ñu bëggee réewum Sénégal dem ci ay élection ci jàmm ak salaam sinon réew mi dugg foo xamante ne nii armée bi sax du ko mën a régler di kàddu yi Bouba Ndour gannaaw ba mu gisee yëngu-yëngu am ci réewum Sénégal ci coowal Ousmane Sonko mbokk internetu net bi tv dina wéy di leen toppandal xibaar yi fii si net bi tv Sénégal.